la agent yi nekk ca Ocritis jàpp ay kilogramme yu takku ca Sinébar Sinébar ba ñu jàpp nag di Brown ñu gën ko xam si turub maroon si ñu ngi ko jàppe ca Mbour ñi ko doon jéem a dugal ci réew mi di ñetti Malien yu bokk benn famille police teg na leen loxo permettre leen maanaam ñu jàpp luñ lu toll ci juróom benn téeméeri kilo euh, yamba donc euh, yamba bi mu ngi jógee donc ñu ngi ko jàppee ci benn camion boo xam ne camion malien la maanaam numéro Mali la yor euh, qualité boobu euh, li nga xamante ne mooy liy lor ci doomu aadama li lay mandiloo wala li lay kiilo daf ci am doole moom lañ tuddee TSC TSC bi dafa dafa dafa dëgër moo tax qualité yamba boobu dafa cher. ngir nëbb boobu lépp si ne bar yi le malien ab stratégie la ñu tegoon dañu defaroon beneen ab sut ca biir camion bi ngir nëbb ko fa waaye loolee mu jëw te sotti gannaaw ba ñu leen tegee loxo. remorque lañ ko garder remorque boo xam ne euh, dañ ko defar. spécialement ba nga xamante ni euh, yow soo ko ubbee dara parce que dañ ci def benn sut sut boo xam profondeur 25 cm, ñu défar ko ay compartiment ba paré arranger ci affaire yi ba nga xamante yow soy contrôlé so ñëwee so xolé do gis dara wa mais comme ñun amna nañ yenn expérience yi suñu agent yi xam nañ yenn affaires ak tout ça ba ñëwee donc contrôlé fekk nañ ci camion bobulé Euh, li ma la wax ni quantité bi ma la wax. soo xaymaa yamba bi yëpp li muy li muy jar euh, mat na 80 million euh, ni ci per ci période bii ñu nekk. ñaari weer ngi nii ñi di waa Ocretis di topp boobu lépp woto ak ña ko yoroon muy ab camion Mercedes buy jar lu tolloog téeméeri million ci ñuy koppar. lolu di wane rek doole bi réseau bi am te nekk ci diggante corridor Sénégal Mali. ngir gën a mën a xeex li nga xam ne moo di trafic bu sinébar ca Sénégal kii di njiital OCRTIS bu bees bi parce que ne gën a yokk li nga xam ne moom la ñuy woowee sensibilisation.